pour rassurer les Sénégalais mooy que ni ki nga xam ne fexe na ba lu ñu doon wax coupure courant waxuma ne amatul de mais wàññeeku na ba nit ñi fàtte ko bu amoon possibilité wàññi courant bi du ko hésiter def loolu dinañ ko def mais nag fu mu toll nii ñun xam nañ ne am na lu ñu dab lu ñu dab mooy coût pétrole bi toll na foo xam ne. aujourd'hui prix yi ñu appliqué nii état bi jàpp na si ba ñu mën a lekk fii maintenant nag léegi ban comportement ban attitude la ñu war a am moo tax ma appeler Sénégalais yi à cette nouvelle culture énergétique mooy que ni bu ñu ñëwee face ak lii nga xam ne am nañ ko ba mu doy waaye nan lañ ko war a jëfandikoo ba suñu poos attan ko nan lañ ko war a jëfandikoo pour ñu gën a ñun dañuy jënd di dañuy jaay dañuy jaay dañuy jaay meemu na lu ñu gën a loon mooy nit ñu di gën a consommer mais sénégalais lañ aussi parce que am na noo xam ne bu ñu ko defee dollars yi ñuy jël di ko yóbbu bitim réew dina toll foo xam ne dina influencer sur suñu balance commerciale te loolu gën a lu ñu donc aujourd'hui ñun kilowattheure gis nga kilowattheure bu gën a may même mooy kilowattheure bi nga xam ne kenn consommé wu ko kenn produire ko ñun loolu la ñuy wax ci suñu kii en termes de planification et moo tax aujourd'hui may wax sénégalais yi di leen rassurer que ñun ñu ngi ci seen écoute ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di wan li nga xam ne moom la ñu war a def pour gën leen mun a satisfaire ndaxte fii ñu yegg ci nii tey am nañ ci part de responsabilité ñun Sénélec def nañ ay performance mais ñu ak ñoom ñoo ko def parce que Sénélec tey jii fii mu toll ba nga xam ne ñëpp a koy jël en référence à cause des performances qui ont été réalisées parce que dans l'histoire de l'Afrique amul benn société boo xam ne jógee nga ci crise énergétique yegg si ci abondance sans privatisation walla sans soutien massif de l'extérieur aujourd'hui ñun def nañ ko ba yegg si fii am na nag ay gàllankoor yu ñu dat ci yoon bi léegi moo tax ñu ne nañ ajusté wu nañ jouer le rôle de solidarité pour que ñu mun a continuer yegg fu ñu jëm mais loolu la leçon que j'en tire mooy que ni il nous faut communiquer davantage communiquer ba suñu message yegg ci client ci communication